bismillahi rahmaani rahim aoudu billahi min asheytan rabbil alamin mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax eh, ci tiru daayira muxaddamatul xidma bi nga xamante ne bi mooy saytu liggéeyu jumaa ji eh, tey ji nag di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor 1439 eh, ñu dalaloon fi ay gan yu jóge ca mu assasatul azhar nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko sos fii ci daarul alimul xabir di ndaam eh, te tudde ko mu assasatul azhar bële nga xam ne moo nekk ca eh, misra di Égypte eh, Cheikh Mouhamadul Moutara nag di koo xam ne ku ne xam na ab coonaam ak ak doxam ak ab liggéeyam bu rëy ci tasaare njàngalem Serigne Touba rawatina njàngalem lislaam ci anam gu gën a yaatu kon nag tey ji liggéey bi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma ñoo koy def ci biir jumaa ji Euh, muy di amal ay waxtaan yoo xamante ne bi dañ ci berndeel ruu yi ak di euh, dañ ci berndeel yi ak di amal ay waxtaan yoo xamante ay euh, ndogu yoo xamante ne bi dañ ci berndeel li lii di yaram yi muy ay ndogu yoo xam ne ñu ngi koy amalee fii ci biir jumaa ji ñu woowoon fi nag waa mu assasatul azhar boobu ñu wuy si ànd ak délégation bu rëy mën nañ ci lim rek Serigne Mourtala jóob ak sëriñ Hassan Diouf ak euh, Serigne Mbacke Diop euh, ak mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoom lañ àndal euh, ñuy sant ñi leen fi yabal muy Serigne saaliwu mi nga xamante ne bi mooy mudirul am bi jiitee mu asatul azhar bépp ñu koy ñaanal suñu borom li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Mouhamadul Moutara mu defe ko ni mu ko bëggee kon nag tey ji ñu woo fi ngir ñu wuy si ci ndogu yooyu mu xadamatul xidma di def ak waxtaan yooyu ñu di leen laaj euh, nan lañ gisee waxtaan yi nga xam ne moom la mu xadamatul xidma di def ak ndogu yi nga xamante ne bi eh, moom lay moom lay def fii ci biir jumaa ji kon ñu jox euh, Oustaz Assane mu sànni ci ay kàdduwaam euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil mbokk yi ñu ngi nuyu bu baax di sant yàlla bu baax di fi teewal euh, al azhar ni ko euh, sëñ Assane waxe al azhar boobu nga xam ne kii euh, sëñ Saliou Mbacke mu sëñ Moutala mooy al mudirul am moo ko jiite yebal nu fi yebaloon fi sëñ Ahmadou Samb mi nga xam ne moo jiite azhar boobu nekk ndaam sëñ Moutala Diop mii bokk jiite doon mudiru ibtidaay ba di primaire ba di directeur ba ak sëñ Mbacke Dioum mi nga xam ne yàgg naa liggéey ci Azhar eh, ak sëñ Arouna it ñëwoon na ci turu sëñ Sall ak eh, sëñ Moutla mu sëñ Abdoul Fatah ñoom ñëpp ñëwoon nañu waaye dañu ci wee bàyyi ngir ñu eh, jottali yoon jottali yoneen yi nga xam ne war nañ koo jottali comme lii nga xam ne nii moo ci war a topp ci ay kàddu ñun ay ndaw lañ yoo xam dañ ñoo yebal sëñ Moutla mi mooy directeur bi kon bu teewee rek day mel ni mu asasatul Azhar yëpp teew na suñ mbàkk nga xam ne lu ne fu ne liggéey na ko ci Azhar moom it bu teewee rek teew na ak seen euh, dong bi di Assane Diouf mi nga xam ne dañ koy yónni euh, ni gisee nag euh, ndo kii maanaam li ngeen def waxtaan yi dañ leen di encouragé bu baax a baax a baax te di sant yàlla bu baax waaye loolu lépp nag sëñ bi moo ko ñaanoon da ban maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahum kon bu ngeen ko defee yéen ci da ngeen a dugg ci ñaanu nangu ñaanu ku nangu sëriñ bi kon loolu war ngeen a sant yàlla bu baax a baax a baax ci bi ngeen demee ba nga xam ne da ngeen di jëmmal ñaanuk sëriñ bi kon muhaadaraat yi ni koy déggee thème yi dafay am solo lool daanaka surtout domaine yi muy jël nga xam ne domaine yu ama am solo la yoo xam day yeete day jàngale lépp a ngi ci biir day day day dundal ruuy ni ñu ko waxe euh, kon loolu li ñu ciy wax moom moom barakallahu fiikum lu ama am solo la vraiment euh, yaakaar naa ne niveau bu mu toll nii euh, kawe na fu bare bare bare bare kon loolu lu am am solo la mu dara bu am solo la boo xam ne yàlla nañ ci yàlla gën a dimbali àggal leen fi fi ngeen bëgg àgg eh, ndax bu fa àggee rek yaakaar naa ñëpp danañ jariñ danañ gën a jariñ bu dee ndogu yi nag nii ngeen koy defee day boo boo ñëwee fii sa xel day dem ci màkkatal mu karam eh, di lu am am solo wax dëgg yàlla di lu am solo loo xam ne eh, yaakaar naa tànki karam rek la jëm ndax ku fi ñëw wax dëgg ma xawaay beeg organisation beeg na yaatal geeg lépp rek ñii di def lii ñii def la leen du duggante moom kon yéen moom vraiment euh, ci wàllum organisation vraiment euh, ay xudwa ngeen ci ay royukaay ngeen ci dañ leen ci roy ci lu baree bari dañ koy wax fu baree baree bari ndax euh, ni ngeen koy defee cawarte gee xidma surtout nga xam ne muqaddamatul xidma loolu moom macha allahu taala loolu kon yaakaar naa sëñ bi ngeen di liggéeyal lislaam ngeen di liggéeyal loolu nag ku koy def yaakaar naa yàlla nangul na la sab liggéey ndax ku mu nanguwul sa liggéey doo ko liggéeyal loolu la ñu am yaakaar bu baax a baax kon ñu ngi ñu leen ci kii bu baax a baax sañ leen sant sañ leen gërëm waaye sañ noonu leen encouragé ak wan leen ne kontaan nañ ci te it ñeeneen leen ci itam ñu sañoon nekk fii bokk di ko defandoo ko yéen waaye li yéen la ko yàlla cëral kon comme yéen la ko yàlla cëral nag xanaa dañ leen ciy ñee rek ak leen ci ñaan yàlla yàlla gën leen a taxawu ba fa ngeen bëgg a àgg rek eh, ngeen àgg fa ñun nag moom eh, di école sëñ Moutala muy Azhar suñ Murtala moom lislaam la doon liggéeyal sëñ Tuubaa la doon liggéeyal euh, coonom yëpp àddunaam yëpp da koo def ci liggéeyal lislaam euh, ndax école bee ba mu koy taxawal am na ku ma wax ne ma dafa wax ne daal yàlla euh, taxawal maa ngi la bëgg a taxawal la daara soo ko àggalee sa yëfa boo ko àggalul sa yëfa kon sëñ Murtala moom daanaka tey tey yàggal àggale na ko foo xam ne kawe na njot kon yaakaar naa sëñ Asan loolu ay kàddu yu gàtt la dama bég waaye ak it xëy na ni mu demee la moo tax ñàkk mën a wax itam waaye wax dëgg yàlla kontaan rek laa def bég laa def sant yàlla it mi ma ci boole boole ñu ci ñun nii euh, kon sëñ Assane yaakaar naa foofu baax naa yem. jërëjëf euh, sëñ Xassane ci kàddu yu gàtt yu am solo yooyu euh, noonu nga ko waxee rek liggéey bi moom liggéeyub Seexul Xadim la ku ne xam na ne toolub sëriñ bi dafa yaatu. ba kenn ku nekk euh, man ngaa nekk ci wenn laaj di fa liggéey daayira Muxaddamatul Xidma nag jël ñaari laaj ci moom euh, di liggéeyal euh, Seexul Xadim ci wàllu xam-xam di liggéeyal Seexul Xadim tamit ci wàllu defar ay ndogu yoo xamante ni bi noonu nga ko waxee léegi lay cëslaay la rek mooy dëppale xarkanamu dëkk bi ak Madinatu na wara ga nga xamante ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa la tëdd teyit euh, kenn ku nekk euh, jullit bu nekk sañ nga niroole sa dëkk ak dëkk boobee kon li waral daayira bi di ko def rek mooy dëppale ñaari xar kanam yi euh, teyit yaakaar nañ ne bu dëppoo wutit maanaam dem na ba jege ko kon bernde yi ñu fi def muy bernde yaram yi ak bernde ruu yi lépp rek dàkk bëgguk sëriñ bi la kon ñu leen di sant bu baax ci wuy si gi e, di ñaan suñ borom liggéey boobu e, Cheikh Mourtada tàmbali woon ca sëñ Maam Moor wuutu ko ci mu wuutu ko ci lu yàgg yàgg ak mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoom la koy àndal e, tañ defe ko gën gaa rafetu defin ñu koy sant bu baax ci bërki démb rek liggéey yu am solo yooyu mu mu def ubbi fi ab université boo xamante ne bi université islamique lay doon buy tasaare njàngaleem euh, yonente bi sallallahu alayhi ak njàngaleem sëriñ bi kon ñu ñu koy ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko ba lim bëgg a liggéeyal euh, baayam Cheikh Mourtada ak mbooloom ay rakkam ñu defe ko ñu ko bëggee ñoo ngi leen di sant bu baax ci tuuru daayira Muxaddamatul Xidma euh, ci tuuru sëriñ Afia ak mbooleem membre yi daayira bi li tàmbulee ci ki njëkk a bindu ba ci ki mujj bindu ñu leen sant bu baax jërë ngeen jëf